Sénégal nañ ko seetloo. asmaay yaay jënu diine si ngaari yow lañu wóoroo. la tàmbalee ca Ndakaaru fay ko diwaar di ca leerloo. asmaay yaay jënu diine si ngaari yow lañu wóoroo. asmaay yaay jënu diine si ngaari دولة ولا لي يا تنودينك سنعي أولا ولا يا كامي في دايما سيدي سنة سورة الله أسمع لي يا تنودينك سنعي أولا ولا دون المدينة تيريومي دايما fi li ma wuda taalif ci téere xajul ci gaal nañ ko seetloo asmaale yaay gënu di ca leerloo. asmaane yaay këddu diine si ndaari yow سلاسر أسال الله أسمعي يا جنودين سمعي أولا وولا دون المدينة تيريومي الحمد لله إذ ما كنت في زمر إلى المحبة في إكرامه نود صلى الإله على النور المحيط على كل الحلائق ما في الدين توحيد wal aali wa saxbi summa taabiin wa man lahum bihim fi umuri diini taqliidu amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi safoo tey wéttali ko seen rajo télévision Asfiyahi ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu wa taala julli ci sangu àdduna ak alaaxira sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñaanal sunu sëriñ cheikhuna tijaani yal na yàlla yokk leeram te def ñu dëgg dëgg taalibeem ñu ngi ñaanal suñu maam Maulana Cheikh Seydil Hadji Malick yal na yàlla uutu fayal ñu ko te kàttanal ñu ba ñu tënku ci jàngaleem ba ëllëg ñu koy fekki ñan yàlla kàddu nuyoo googu ñu yëkkati lépp lu mu ëmb ci jàmm ak barkeek yërmande yàlla ko yàlla wasaare ci réew mi wasaare ko ci àdduna wërngal këpp ci barke gurgu tedd gi nga xam ni moom la ñuy fàttaliku téeméeri at après muy suñu maam Seydil Hadji booba léegi nag yéen gi ànd ak ñun ci mbooleem jotaay yi nga xam ni dañ leen ko dëgtal ngir dundaat li nga xam ni mooy biographie maanaam jaar-jaaram waaye itam dundaat li nga xam ni mooy bibliographie maanaam ay mbindam nga xam ni képp kuy gam-gamle xam-xam Maodo wala bokk ngay tëkkale Maodo kenn boo duggee ci téere yi xam ni kenn du Seydil Xaaji Malick moo tax ñu koy dippee jàmbaar ji ba tax na asfiya yi ci 27 juin bi ñu tombeek 2022 di fàttaliku 27 juin 1922 bi fi Seydil Xaaji Malick jóge woon maam Mansour ne woon taribal fuaadu mu faariqal min lazatin tarakatuhu kan nachawaanu góor ñi ko waroon ñëpp moom Seydi Haaji Malik kenn ku ne ba ma dëddoo am na loo yëkkati sa xalima daal di koy wax jooyee ko jàmbaar ji Seydi Haaji Malik waaye ñaan yàlla mu yeesal yërmande ak njégal ci moom ñaan yàlla mu tastu ci barkeem te kàttanal ñu ba ñu mën tënku ci jàngaleem tey ci suba ñu ngi woon ca zawiya ba mu tëdd tëraayam bu jekk boobu ànd kook ya mu laaj ci njiitalu sëñ Mansour si da yoon mu jiite lépp lu doon am ci ay manifestation ci centenaire bi tey moo ñëw diriger kaamil bi daal di ànd ak gi ànd ak imam ratib imam Mansour Sy macha allah ak ay fa imam Mouhamadou Lamine Niang suñu sëriñ suñu soppee waaye itam ci ndigalam sëñ Pape Youssoufa Diop jàng xatmu bi mu nekkoon jotaayu xam-xam nekkoon jotaayu euh, yiw nekkoon jotaayu leer ndax góor gi nga xam ni moo ko sabab alxaaji Souleymane Ba ma nga fa woon moom la ñu fas yéene àndal macha ci bu tedd nga Fouta bi waxtaanee njool màkka ci bindu njool faama loolu nag xam naa moom droit d'auteur war na ci waaye moom du moom moo koy jox am na ñoo xam ni dañ jël boobule bàkk di ko bàkkee te ci ñun la jógee woon macha allah foog droit d'auteur war ci nag moom nag jàmbaar la sànq sëñ Mansour da baax ginnaaw bi mu santee mbooleem asatis yi ak animateurs yi seen taxawaay walbatiku na daal di jàkkaarloog moom jaajëfal ko ci taxawaay bi démb ci guddi bi ngeen di suivre asfiyaay ca ba ma nga woon daal di waxtaan waxtaan am solo xam ni ñooy ambassadeur kër Cheikh El Hadj Malick jotaay bii nag du ci wét dina ànd ak soppeem xaritam partenaire am koo xam ni bu àddoo ñëpp xam ni maam Cheikh El Hadj am na ku ne di borom xam-xam di nit ku tedd waaye koo xam ni ku am kilifa la du jug mukk jëm ci bërëb lu dul ni am na ci ndigalu kilifaam sëñ Habib si Mansour kooku nag su ma tuddee sëñ Habib nga xam ni ki ñuy wax kon mooy alxaaji Sam Boub le phénomène de sëñ El Hadj Malick soppe Maodo bi moom Sam soxlawul dara lu dul ngërëmal sëñ El Hadj Malick la maam Mansour digle woon moom def na ko maam Mansour dafa ne woon yaa aaxizuna bihi shaddu zuhurakum na ngeen takkaat seen teewul benn yoon mu yolam mook ndaw ñi mu àndal laataa ñuy tàmbali ci mbégte mi séq ak ñaar ñaar ñu tedd ñooñu mi alxaaji Souleymane Ba ak alxaaji Sambub damay bàyyi eh, imam Souley mu yëkkati kàddu nuyoo nuyoonteeg yéen ñi nga xam ne yéen toog seen i salon kal ko ci Asfiyahi TV ñu wétali leen ci bëccëgu ñaan bi imam Souleymane ginnaaw biñ la massawoo ci coono bànneex yi ndokkeel la ci bisu góor gu tedd gi suñu maam Seydi Alxaaji Malick ñu ngi lay bàyyi nga nuyoonteeg si soppe yi ñu fa seen dugg ci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 tabaarakallaahu nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun depuis événement yi balaa événement yi kulla yawmin tabaarakallaahu di leen ñaanal yàlla di nuyu professeur tabaarakallah sëñ maam Ousmane maam Omar Ndiaye maa koy wax ni yow boo demee Jolof yaay Buurba de Jolof boo ñëwee Tiwaawan yaay Serigne Tiwaawan boo demee Dakar yaay directeur général Asfiyahi loolu nag cër la bu ko yàlla cëral yàlla na yàlla dëggalal ko defal ko tawfiq barke maamam Seydi El Hadji barke maamam Serigne xel ndax boo nekkee ci mbir fekkoo ca mag mu ca nekkoon wala déggoo ca gone gu ca bëgg a nekk wala gone gu ca nekk fekku la ca booy boo nga bàyyi te xam ne nekkoo ci dara macha allah yéen moom da ngeen dara suñu xel ndax wax dëgg yàlla yëf yi yéen a ngi koy teg fi mu war a nekk te loolu yëpp tabarakallahu ci tarbiya bi ci daara ji yal na yàlla defal leen tawfiq émission bi ni nga koy gérer tabarakallah ku lay dégg xam ni da ngay bëgg li ngay def doomu aadama bul ko jox li nga ko bëgg a jox waaye da nga ko jox li mu bëgg a wax dëgg yàlla ku la fekk xam ni yàlla tabarakallahu ñi ngay dalal say soppe la li ngeen di waxtaane da nga koo bëgg yal na yàlla defal la jàmm yàlla defal la tawfiq yaag sëñ Babacar ñi ngay àndal ñëpp tabarakallahu di nuyu nag tabarakallahu alaaji Samb moom nga xamante ni moom c'est un miracle parmi les miracles de Seydou Hadji Malissi c'est le phénomène malikite de son temps loolu mooy alxaaji sambou tabarakallah nek ndaw duggu ci daara yi ndekete yaakaaroon nañ ne kat daara yi dafa am ñum fay xaar waaye ndekete daara yi Maodo ñëpp lay jàngal tabarakallahu amul discrimination noo mel boo joxee sa bopp Maodo mu woo mat la ba nga yegg sa borom ubbi saxel def ci leeru yàlla yàlla na yàlla dëgëral ko tabarakallahu ak ñi mu àndal saam nag nekk xaritu ñëpp saam nee naa ko mooy xorom ci lu ci lu mu dugg rek nga yaakaar ne fa juddoo ale la fekk tabarakallahu ko defal loolu kum àndal da nga yaakaar nañu répété fekk yàlla xam nañu dafa mim ni mel ci xadara bi yàlla moo ko tànn defee ko ko noonu yàlla na yàlla dëgëral ko yàlla sàmm ko yàlla barkeel ko ak ñi mu ndax moom rek mënul dara waaye xale yi nga gis ñu ànd ak ñoom am nañ fidélité boo xam ni li ñu nekk nekk benn génération koo ci gis mu ànd ak saam da nga yaakaar ñoo bokk ndey ak baay loolu yàlla moom moo koy def tabaarakallaahu yàlla na yàlla sàmm seen diggante yàlla barkeel leen saam ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa ko wér dolli ko bàyyi ci biir yéene ji nga xam moom la am ci xadara maamam am ko ci diine ji am ko ci ummatu rasulullah salaa sallam am ko ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla mottali ak yarakam tabaarakallaahu ndax ku gis ni ci tabaarakallaahu centenaire bi ni mu demee nga xam ni yëfu yàlla daal yàllaa koy organisé boppam sànq damay xool waxtaan bi sax duggaguñ ci waaye ma xool bi ñuy tëj wax bi ñuy tëj wax ji ñu nodd bi ñuy tëj ñaan gi journée culturelle bi ñaan gi bi ci pare dañoo nodd mu tombeek tembe tembe jour bi bi nga xam ne ci la Seydou Hadj Malick lañ koy dugal ci biir suuf mu tombe juste bi ñu dencee Mor ba pare góor gi mbuuda mbuuda moo yéeg nodd kon ñu ñaan cent ans après. même place même lieu. Hmm. descendant des mêmes personnes. Hmm. ñuy def li ñu doon def. di ko fàttaliku. Hmm. ñu tëj doomu sëtam Seydou Hadj Mouhamadul Mansour sami ibnihi Al Hadj Mouhamadul Mansour daal di ñaan ba pare nii ba ñu tëj ñaan gi noddukat bi daal di nodd kon nga dégg ni hadihi bi tilka tabarakallah almubtada huwa saydu xaaji malik wa abnauhu wa ahfaduhu hum alxabar te alxabaru mubtadaun marfuatun bil ibtida waaye wa xabarun murtafiun bil mubtada tabarakallah irtafaau rifaata jaddihim yëkkatiku nañ ci seen yëkkatiku maam topp nañ ci seen yoonu maam tabarakallah yàlla na yàlla defal leen tawfiq ma seetlu beneen affaire bidaayatu saydu xaaji malik cent ans yi ki ko njëkkee ki ubbi làmb ki ubbi cent ans yi mooy sëñ Babacar Si ki tëj cent ans yi mooy sëñ Babacar Si waaw kon nga xam ne moo da tabarkaala loolu xam naa ni dama doon nuyoo rek bu ñu duggee ci waxtaan nañ ci am ay taw a toog di ngeen nekk ci internet bi moo xam youtube la wala boog facebook wala twitter macha allah alxaaji souleymane loolu mooy nuyoo bi waaye nga tudd góor gi nguuda mbub wala nodal si di xaaji malik alxaaji sambub nag moo fi seen bàkk jàmbaar ci ànd ak nga daal dugg fu la neex tàggal ñu إلهي رب فإنك باش العام عند الخليقة إلهي يا رب الله فيرتجى بين قوات العام عند الخليقة إلهي يا رب سواك فيرتجى فإنك باس العام خليقتي لا يا رب أيجا سواك يرتجى إلا دوات العام عند الخليقة فأنت إلهي باسط اليد في الندى وغير مضاد إلهي بحكمتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية ربي غياثي وعمدتي أبي الخلق يا مولاي غير مزاحم يا في الإبداع موصوف وحدتي فأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة إلهي بقطب العالم إليه وسيلتي إلهي بقد ودين آه. إمامنا آه. رجائي إلهي وسيلتي وغوثي للإله وصلتي ختام نظام للولاية جملة بأرتجي الغفران من كل ظلة بأرتجي فتح المغالق كل غايتنا التجاه من كل شدتي وكما اشتكي عند الإله ذيار زوايا ولكن العنان بقبضتي أنادي وهل يجني داو أخا الجواب الدار يعطيني مرابي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده فإن لم أدرى يا جارت عزتي وأنت وأنت الوعد وإنك صادق إجابة عندي ترار وذلتي إلهي فاحفل والدين ذنوبهم ذلك يا رحمن لكل المشيخة كذلك إخواني لا هي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأذكى صلاة الله ثم سلامي على خير خلق الله من غير مع الآل والأصحاب بما ضر شارق زال دائم يا إلهي لشدتي مع الآل والألحان أيتا بما شيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي الله بلغ له كل مامول مرقيا أعلى مراتب آل الله يا الله ووفقا أهله بمعد جودك للقبول يا ربنا يا الله يا الله الحاج مالك بما يرضي الله واستعملا روحه على إفاضة أنوارنا على سحبي الله يا الله

المسلمين وفي هذا الطريق أمتنا ربي الله لشيخ سيدنا مالك بما يرضي الله وشيخنا ومرابنا محمد للهادي أخي الصدق والإخلاص يا الله لشيخ سيدنا حول مالك بما يرضي الله بجاي طالي ثل ثم آل وصعب وسلم ربي الله سيدنا حاج مالك بما يرضي الله وعلي الغري أصحاب الهدى الكرماء قبور أسراري نائين من آه هاجي مالك بما واب إلى مولانا وسيدنا شينا وفاء ويا مبغى ويا الله وعن نجيا سيق سيدنا الحاج غالي بما يرضي الله ورق رتبته ونجي زمرته زد لهم مدد الخيرات الله رق رتبته ونجي زمرته زد لهم مدد الخيرات الله دفلني ورق رتبته نجي زمرته زد لهم مدد الخيرات الله واو نجي زد لهم مدد الخيرات يا الله ورقي مدد الخيرات يا الله يا يا زمرت زلهم مدد الخيرات برم سنتنر برقي رتبته ونجذهم زلهم مدد الخيرات يا الله نجي ذمرته زلهم مدد الخيرات يا الله قفلني ورقي رتبته بتوا أجي ذمرة زلهم مدد الخيرات يا الله نجي زمرته زن لهم مددا الخيرات يا الله مين ورق رتبته ونجدهم زلهم مدد الخيرات يا الله ونجي امرته وذلهم مدد الخيرات يا الله كن جل جلالك يا من عز عزته خصصنا نفسك بالعلياء يا الله جل جلالك يا من عذى وقصص نفسك بال جلالك يا من عذى عزت وقصص نفسك بالعلياء يا الله جل جلاله إيه من عذائل ووزنزك بالأولياء الله منك ميرك بألجانا مانيرك بكوثر مانيرك بكي شيخنا أحمد تيجاني مانيرك بألجانا مانيرك شيخنا Moto di Sambour waaye itam tawasulaat yooyu mu yëkkati tàmbale ca tëba ne maam Xarit Touré moo ko ñaanal suñu bi Seydi Hadji Malick ñu aj ko nag ci bépp ñaan boo xam ne taalibe yi fu ñu mën a nekk ci gox yu fasantikoo yi ci bu Ndar Géej bu Dakar macha allah ñu nekk Allemagne fu taalibe yi nekk ba Italie macha allah ba Amérique fu taalibe ngeen nekk rek tey ñaanal moom Cheikh Hadj Malick bis bi ñu ngi ak yooyu ñaan nag ñaan alxaaji Samb yi mu ubbee jotaay bi muy plateau spécial bu leen jagleel alxaaji Souleymane xam tuddee le phénomène wala boog miracle parmi les miracles de bëggoon nañ benn jàngat ni ko defee sànq ci euh, centenaire bi uh-huh. da ne muy ubbeeku mm-hmm. sëñ Babacar ma ko mm-hmm.

xam nga maanaam message bi message u Maodo ak message u sëtam bii maanaam amul décalage amul différence maanaam benn buum la bu Maodo yor rek buum ji yooru jóge ci maam Alpha yi ma yoro jóge ci Mouhamad Cheikh Amadou Fouti yi jóge ci Mouhamadul Ghali yi jóge ci Cheikh Tidiane yi jóge ci Rasulullah jóge ci rabu samawat wal ard kon nga xam ni tabaarakallaahu mu ni fan yii séminaire la ci biir Tiwaawan ci biir àdduna séminaire boobu liñ ci mën a jàngate mooy tabaarakallaahu fexe ba ku nekk di njabootoo ci Maodo di askane Maodo askanoo Maodo nga réviser waat sa bopp noo def ak Maodo ndax boo amee koo xam ni ñëpp d'accord ni moo ne ca kanam nga ñëw ci gannaawam ñu lay seet ci kanam fekk la ca gannaaw war ngaa xoolaat sa bopp ci yow la waaye du ci moom kon njaboot yi nga xamante ni bii ñoom ñoo njabooto ci Seydi Hadji Malick di askanoo Maodo bëgg Maodo di taalibe Maodo di wéttalikoo Maodo di jàng ci Maodo tarbiya buy tax ñu jubóog seen borom nañu réviser waat seen bopp diggante seen diggante ak njabootu seen ak njàngalem Seydil Hadji Malick ndax boo gisee sànq sëñ Mouhamadul Mansour Sy Dabakh jotaay bi ay xale rek ñoo fa nekkoon moyenne d'âge bi ñi ci ëpp ay 12 ans 13 ans 14 xale ñi doon jàng kaamil bi daanaka ak ñu doon def ci concours bi ku ci am 20 ans da nga naan benn la ci wala seraar kon nga dégg ci ni li góor ga waxoon ni inna la rawaamida mil abus sibiyaani ndekete yi jafe ci njàngaleem Maodo ak ci éducation Maodo ak ci formation Maodo moom mooy fowukaay yi li jafe ci ñeneen ñi mooy fowukaay yu xale yu Kër Maodo kon boo xoolee pépinière bi di nga xam ni kat am nañ jeunesse boo xamante ni bii c'est prometteur comme ni ñu koy waxee ëllëg mën nañ cee jàpp waaye faw ñi nga xamante ñooñu nekk ci digg ndaw nañu xoolaat seen bopp ak diggante seen jàngale maam Seydou Hadji Malick ndax xam nga Pape Amadou damay faral di wax ni ki nga xam ni yéen ñaar bokku leen professeur bokku leen ku leen tàggat boo deful nànk rek yow mi bàyyi niñ la tàggatee toppandoon toppandoo keneen ci niñ ko tàggatee mën ngaa faussé sa yoon ci misaal rek ki nga xam ni moom li mu nekk may na ko lu mu bëgg a def yow li nga nekk mayu lenn loo bëgg a def nga def ko ci sa bakkan da koy def ci ay norme yoo xamante ni bi ci lañ ko tërale boo génnee ci bedd bi ñu wax la rek ci gàttal xam nga Cheikh Tidiane ci njàngaleem comme ni ko Seydou Hadj Malick jàngale day bañ wer day bañ werante ah góor gi wax ni tafaadulu turuqin wal xadiisu jidaalu wal jidaalu xadiisuhum mu ne pénc moo dem li fa xew ci jamono mooy sama sëriñ moo gën sa sëriñ sama sëriñ moo raw sa sëriñ sama sëriñ moo mën sa sëriñ nee na ñu warante suba ba ngoon waaye kenn jéemu cee mel ni sa sëriñ te bàyyi ñu xel ni sëriñ si dañ leen a def suñ kanam li naqtadi bihim kama jaala allahu sayidana muhammad rasulan wa imaman yuqtada bihi lil huda wa yutbau bi xatawatihi wusulan ila allahi loolu mooy lan taalibe bi toog di yem sëriñ bi taxul woon sëñ bi yàlla boole koog moom déedéet li ko tax yàlla boole koog moom mooy mu jéem ni sëriñ bi jéemee bañ koy topp moom mu jéem ba teg tànkam fi sëriñ bi teg tànkam ndax sëriñ bi jéem na ba teg tànkam ci tànku Seydina Muhammad ci mi nga tey ba bu sàmm bu amee xaalis bëree bëri yor ay million Pape Abdou gis ko rek ni Sam am na ay million di toog non Sam million mi million mu Sam yi million gu Sam yi Pape Abdou liggéeyul jéemul dara est-ce million mu Sam yi moom lay dépense au këram déedéet lu mu war a def mooy fexe ba saam na mu def ba am ci million ya mu jaar ci yoon yoowu ba am ko cela veut dire mooy yow mi gis Maodo dégg Maodo ñuy wax Maodo ak mën a jàngam ak yaroom ak baaxam ak defareem jubag boroomam dëddu àdduna jox boppam boroomam nga ñëw fexe ba mel noonu bu ko defee yowmal qiyaam fu Maodo fréquenté nga fréquenté ko fa fi duniyaa fu Maodo am cër nga am ko cër ndax yàlla bi mu yónnee Seydina Muhammad waa Quraysh lañu wax ni waaw lan moo tax yàlla di yónni nit teewoon mu yónni malaayika yàlla ni déedéet vous n'avez rien compris walaw jaalnaahu malakan la jaalnaahu rajulan li ma fi nekkoon di ko def malaayka ngeen da am problème de communication du ngeen mën a waxante la jaalnaahu laa leen noppale def ko rajulan mu nekk doomu aadama comme yéen yakulu taama wa yamshi fil aswaq kon sëriñ bi itam le fait mu nekk nit nekk suñu biir pour ñu mën a jéem ba mel ni mu mel suñ ko mënul ñu jéem sax ba jege ko waaye nekkul yëm taajub sëriñ bi sëriñ bi kon lu ñu jàngee daal ci centenaire bi sama gàtt sama gis-gis bu gàtt ak sama jàngat bu gàtt mooy nañu góorgóorlu ba ñun taalibe yi ñu Maodo visé waat suñu bopp ba koo ci gis ne muy dem directement da nga naan ah kii de booyu Maodo la. Mm. boo nekkee ndaw ku la xool xam ne nii ci xale Maodo yi la bokk. Mm-hmm. boo nekkee mag ku la xool xam ne ci magu boobu nagu Maodo yi nga bokk. Mm-hmm. boo nekkee soxna ba am benn benn maire daan bale. maam mm-hmm. da daan bale buy bale dafa am benn bu benn benn benn bayit ibnu muhayyab bu mu daan way di ko way ci seydina muhammad benn góor gi ne ko minal qawm minal qawmi rasulullahi minal qawmi rasulu xaw ma nu nu bayit ba jeexee ñu ne ko waa góor gi yow waa yaay booy ñoo def yow bu foo jàng bayit bii mu ne bayit bii de dañ daan dégg Maodo di ko waxantoo mm-hmm. ñu dégg ko ñun jigéen ñi di ko waxantoo ba ku ci nekk sa buntu kër di bale amuloo droit di bale sa buntu kër di wayantoo ay way àdduna même booy bale sa buntu ba buntu kër yaa ngi wayantoo Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. kon nga xool environnement boobu ñi daan togg ci jamonoy Maodo dañ daan toggee hmm. xasida Seydina Seydou Hadj Malick wax Seydina Muhammad wala li ñu tagg Seydina Muhammad hmm. ñii bale ñii raxas ñii fóot kon environnement boobu dafa fekkoon ba Seydou Hadj Malick da koo Seydina Muhammad yi woon waaw maanaam da koo désinfecté woon ba ci ci ban ci ban ban détergent ak ban produit du gel alcoolique mais mahabbatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak wal fanaa fillahi ak mahabbatu lillahi ak tahabubu lillahi wa taradi amama allah loolu mooy lan fexe ba nit ñi bëggante ngir yàlla fexe ne ba nit ñi jàppante ngir yàlla fexe ne ba nit ñi soppante ngir yàlla àdduna kenn yàqalul kenn kenn xañul kenn kenn teewul kenn am li nga bëgg a am kenn teewul kenn dem fi nga bëgg a dem ndax al umuru bi qabdatil jabbaari yëf yi mi ngi ci loxo yàlla yooti wa yam naxu yam yamnaxu wa yamnaaw yamnaaw mooy xañ ku ko neex waaye wa yamnaxu mooy xañ ku ko neex loolu moo lay may chance na góor gi xool gis gaa yi jàkkaarloo Maodo dajoog Maodo defaru mu ni ndekete yoo am chance mayu yàlla dëggantaan mooy nga fexe dans un laps de temps ci 24 heures yi nga dajeeg góor gi ñu wax Seydou Hadji Malick kërsi nee na n'importe qui ah ki mu koy waxal du n'importe qui sëñ Babacar Si waxatul ak bàyyam Seydul Xaaj Maalik sëriñam Cheikh Seydul Xaaj Maalik lay waxal radiyallahu taala xam nga toog di wax sa baay hmm. moo baax moo baax hmm. boo deful nànk sa borom xel dañ lay yedd waaye sëñ Babacar nee na ndekete kullum ri in bépp cam xam nga al marqu mhm. dañ koy firi cam en général waaye kullu mri in bépp nitu yàlla ya kullu mri in képp aju soobu ci yàlla ya kullu mri in képp ku bëgg a xam yàlla kullu mri in ku bëgg yegg ci yàlla ya kullu mri in ku bëgg am martabay xaqiqatul muhammadiya sayidina muhammad takal la ko ci diggante ahmadiya ak muhammadiya nga laa ko ak ubuuda kooku nag yax dana am loolu bi liqaa ci dayeg góor gu ñu wax cheikh seydul xaaj wa liqaa yawman fa minhatu maliki Pape Amadou mel ni sëñ Babacar bi mu waxee loolu gars yi dañoo dagg paas ni ah comme que Maodo ngi fii damay dagg paas jóge fii dem Maodo fekk foofu Maodo am li may seet góor gi ni déedéet hmm. faliqaa ohu dem ci Maodo wala yegg ci Maodo du ay pexe du alal ju bëri du mën a joxe du mën a def du mën a liggéey lan la fa minhatu maliki hmm. fa minhatu maliki xam nga dafa am lu ñuy wax al minhatu ci arab hmm. ak lu ñuy wax almihnatu mm-hmm. alminhatu mooy ak may mm-hmm. alminhatu mooy nattu bu ànd ak ay duma mm-hmm. suñ Babacar ni fa liqaauhu dajek góor gu ñu wax Seydul Xaaj Malik yow man benn bis loolu amu ku ko mën a lijjanti du ay connexion déedéet du ay link déedéet lan la si mu ni fa min xatu maalikin yàlla moo lay may nga bëgg si Hadji Malick nga bëgg waaye du da sawar bëgg bëgg Maodo bëgg Maodo déedéet yàlla mooy bëgg nga bëgg Maodo nga bëgg Maodo bu yàlla nga bëgg Maodo doo bëgg Maodo kon ki bëgg Maodo sëñ Babacar nee na yàlla moo la may chance nga bëgg Maodo ndax fa liqaa'uhu yawman fa min xatu maalik xanaa ko moo tax rakkam ja bàyyi xalifa bi daal ni alhamdulilah isma kuntu fi zumarir waaw alhamdulilah Sam. ndax yëg na ni bokk ci jagle yàlla la. waaw mais da wax lu am solo da nga dañu war a fexe ba. Mhm. képp ku bokk ci njabootu Maodo. Mhm. nga tënkoo ci programme am daal di nekk Maodo. waaw programme Seydi Hadji Malick. Mhm. boo ñu ko doon étaler pour ñu mun tënku ci ñun ndaw ñi. rawatina taalibe yi fu ñu mën a nekk ci réew mi tey wéetale ko asfiya yi. programme boobu point par point lan lay doon Sam dina gunge. maanaam man damaa jàpp ni Pape Amadou benn aaya alquran rek moo tax sax aaya ci biir alquran ci suratul rahman wa aqimul bi lëpp test wala tuxsirul mizan loolu moo doon loolu moo doon loolu moo doon méthodologie Seydou Hadj Malick loolu mooy la adduna bi yëpp ci équilibre la ko yàlla tënk mm-hmm. jant bi wa shamsu tajri li mustaqarin laha dhalika taqdirul azizul alim mm-hmm. maanaam adduna bu amee déséquilibre éclipse mën naa am la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala lilu saabiqu nahar kullun fii falakin yasbahun équilibre la mm-hmm. ah électron négatif yi ak positif yi joxante équilibre la noyyi gi ngay noyyi muy dugg ak génn équilibre la mhm. ndox mi ngay am ci sa yaram li koy doxal deret bi globule blanc globule rouge équilibre la mhm. Mhm. ah chromosome yi tout ça équilibre la maanaam même garab bi ñu lay jox ci principe actif yi ñu koy composé lépp équilibre la ci du xaaju Maalik nii nag bu ñu amee déséquilibre doomu aadama ni ngay xam ni bu sa àdduna bu sa yaram amee déséquilibre ci wàllu suukar nga jabet wala mu am déséquilibre ci wàllu wa wa wàllu luñ ko luñ ci nga xamante ne digganteem ak borom wala digganteem ak morom wala digganteem ak environnement bi muy dund. Mhm. bu amee déséquilibre léegi tey doomu aadama bi yàqu. ndax xam nga la ma fi am. Mhm. lan la Maodo fexe lan moo doon yittee Maodo. Mhm. ñu xam ñun ñooy ñan. ki ñu fi indi mooy kan. fii mu ñu indi mooy fan. lii mu ñuy doyee mooy lan. mooy yittee bu njëkk. moo doon yittee Maodo. introspection. waaw xam yow yaay kan. ki ñu fi indi mooy kan. fii mu ñu indi mooy fan lim ñuy doyee mooy lan gis nga ñett yi ñeent yi mm. bu ci doomu aadama réere mu indil ko déséquilibre diggante ak boroomam ah? mm-hmm. looloo ko may bi mu demee Seydou Hadj Malick di jëflanteeg boroomam mm-hmm. lu maqaama yi bëri bari lu may yi bari bëri Maodo mi ngi taxaw ci maqaamil ubudiyya mm-hmm. xam nga lu xew in kullu man fi samawat wala illa ati rahman abda mm. Maodo ni man équilibre bi pour mu leer suñu bopp ñun ñëpp. Mm-hmm. nañ nekk ay baadan lillahi mm-hmm. hmm? ndax doomu aadama yonent bi jaam la. Mm-hmm. Ababacar jaam la. yonent yi ay jaam lañ wëllu ay jaam lañ. kon balaa kenn nekk wëllu yu ngay nekk yonent il faut sa oboodi ya leer. nga nekk jaam ba pare. ah maanaam civil yi ci civil yi ci la ci la militaire yi jóge ci la armée yi di jóge mhm. mais balaa ngay nekk civil balaa ngay nekk général wala ngay nekk commandant wala ngay nekk gobi loo mënti doon da nekk civil ba noppi boo nekkul citoyen mënu loo ko nekk ci réew mi kon citoyen doomu aadama mooy al ubudiya mhm. abdun فقير خاشع وجل ذو جزع اصيل فني الله ويا الله عبد جليل جنقواي خير خاشع وجل ذو جزع اصيل asif allah ya allah góor gi ne abdun zalilun fariqirun xaashiyun wajilun zu jad'il asif fun ya allah ya allah abdun zalilun janbay فن يا الله يا الله دفلني عبد سليل فقير خاشع وجل ذو جذع آصف يا الله يا الله عبد ذليل فقير waaw hadiun waaw wajilun waaw zujala'in asifun yalla yalla mawdo ja xoolal góor gi mm-hmm. ki waxal mm-hmm. gis nga yàlla boo ko matul jaam mm-hmm. ah amuloo cër ci moom سبحان الذي اسرى بعبده ak sayyidina Muhammad li mu am ci ay tour waaw li mu am ci ay garar mu tekki garar yëpp ni recevoir yonent recevoir ab waliyu recevoir habibul xabibul recevoir ma xayru xalqillaay recevoir ma mushafa kan la recevoir mu ne abdul subhaana alladi asra bi abdihi wa jange balagha ci ahlul bayan lolou lañuy tuddé tuddee idaafatu tashrif idaafatu tashrif mm-hmm. kii dey xaritu sëriñ bi la mm-hmm. waaw ah kii de booyu sëriñ bi la mm-hmm. saam day xaritu sëriñ Habib la mm-hmm. saam am na martaba muy benn waaye liñ ko laaf ci sëñ Habib doylu na ko martaba Seydina Muhammad yàlla bi na ko mu nekk abdan waaye abaafahu ila nafsi yi yàlla moo gën a màgg ku gën a màgg ci jaam yi mooy ki nekkul jaamu kenn ku dul yàlla ku na ya axi abdan li mawlaaka tastarix min addiini wa dunya siwaahu yabuuru sàmbaal ma yàlla ni subhaana li asra bi abdihi لعبده الله وإنه لما قام عبد الله عبد الله تعالى عبد الله الكامل هو الإنسان الكامل وأكمل الإنسان أكمل خلق الله الذي الكمال منه البداية والمنتهى حكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ فنعرف rasulahu wa abdahu arafa rasulahu wa abdan li nafsihi moom yàlla mu ne asra bi abdihi Seydu Xaaji Maalik ni hmm. comme que yàlla képp kuy jëflanteeg moom dootoo tudd na nga tuddoon dootoo tudd na la sa baay tuddee dootoo tudd na la sa maam tuddee dootoo sant nañ la santale abdu ngay tudd sant lillaahi Seydu Xaaji Maalik ne ba ma demee ci kanamu yàlla ni mu ko jàngale ci téere ba rabbun tabaraka benn nuyoo rabbun taqaddasa aw rabbun taala uluwan wal aw bi maanaa bal rabbun rabbun tabaraka d'accord hmm. waaye bal rabbun taqaddasa bal rabbun taala uluwan rabbi allahu boo jàng bayaan dañuy wax ne wali mu faadi bal wa man bi daaq ak ankara yudraddu bi dawqi wa qawli ulama bal rabbun taqaddasa bal rabbun taala uluwan uluwan i'tala uluwan fi ulu wa fi i'tilai yallaahu yallaahu moo do loo cher mu ni ilayka mm-hmm. ñu ni ko kan la moo do faa waat mu ni déedéet abdun xam nga bu ne bu ne woon ala abdu mm-hmm. hmm? dafay mel ni yëg na ni moom doon na dara mm-hmm. ndax ma maarifa day mel ni ko ñu xam lay doon mu ni kii abdun ko kenn xamul la xamuñu ko mënuñu xamuñu ko mënul ku doyadi la ku wàcc la mm-hmm. gis nga zalilun faqirun xaasho lépp tanwin di ca abdun lay lay firi mm-hmm. abdun jooju nakira jooju zalilun faqirun xaashoon wajilun zu jadahin loolu ñaari masque yooyu lay tekki mm-hmm. نكر لإفراد وتعظيم ودد بيان نوعية ودد, ودد نوعية كسد وجاء لتعظيم وتكسير معا والتحقير والتحقير له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب من عبد جنب دويد كوكنا ذليل فقير خاشع وجل ذو جذع آسف يا الله يا الله يعني الله الله الله يوم يخمنتني mi الإيجاد allahu yow mi nga xamante yaa moom al imdaadu nga jaarale ko sa soppi di sayyidina muhammad mi nga xamante ni bii zil ijaadi wal qidami mu mit dinaa bi wujudi badri zil qadami góor gi lahul xamdu wal ijaadu jalla jalaaru wal wa fadli munir nawaqiya allahu akbar si nga ni xale yi paasante bal bi hmm. la waakar alaaji maa di nga toll noonu ci wàllu abdu di wax programme bi programme bi waaw ci laa lay wax li ñu war njëkk def waaw mooy xam obudiya ñooy ñan gis nga Sénégal li tax mu compliqué nii mhm. maanaam citoyen yi bàyyeetuñ xel seen citoyenneté aduna bu ku nekk komplik woon xel la nga doon nga kër gi ba nga dem ci kër kër gi compliqué mhm. kër gi kër gi ku da sa da da la yow kan ci kër gi papa yaay doom maam sët gardien ak kiy liggéey ku ci fàtte yaay kan ci kër gi kër gi jaxasoo hmm? adduna itam bu ku nekk fàtte yaay kan ci réew mi réew mi réew mi jaxasoo hmm. ci biir obu ci diggante suñu suñu borom bu ñu fàttee ni ñun ñooy jaam yi hmm. abdu abdun war rabbu rabbun moo tax waxkat bi ni ana abdu mafaulun bihi abadan fal yantasib والله والرب فاعل ابدا فليرتفع. يعني مرتبه يعني مقام فهم الرفع والنصب الرفع الفاعل الفاعل الحقيقي هو الله لان واحد بيجي نحو حقيقه الفاعل من فعل الفعل ويسند لغير مجازا كما تزيد الفاعل الحقيقي هو الله لا فاعل بالحقيقه الا الله إذ لا موجودة لا مكونة لا خالقة لا رازقة لا نافعة لا ضارة لا خافدة إلا الله ولا موجودة بالحقيقة إلا الله فالكل إلا الله سبحانه وتعالى هذا من على التفسير الإجمالي du dëgg kon mu leer ni kenn fi nekk mu yàlla kon moo doon li mu doon njëkk njëkk njëkk li mu doon priorité ce qui est primordial ci kanam Seydi Hadji Malick mooy fexe ba jaam bi xam ni jaam la allahu akbar Abdoul premier point premier point jaam bi xam ni jaam la jaam la xanaa kon loolu la jàngal Mame Mansour mu dégg ko. waaw moo tax bi bi bi mu génnee àdduna 1922. Mm-hmm. mu ne Allahu akbar. Mm-hmm. ci ñetti yoo ñetti yoo xam yooyu. maa la ko wax Allahu akbar mi kat jaam la. jaam la buuram bi ko jëlee nag. jaam ko jëlee mi ngi fi. waaw kon nañu ànd jaamu ji ko. nañu ànd jaamu boor boobu kon nga dégg ni Obudie Sam. Allahu akbaru. wal baqaau baqaau. déggal góor gi Sam mu ne Allahu akbar. moom rek a fi nekk te wal baqaa u desug moom rek baqaa u ajdaalana min saa'iril akwaani maanaam nekk téef yi ku ci nekk yàlla la nekkal waaye ñun la yàlla jël ñu gën a ko ci ñëpp dëgg la de allahu akbaru jalla man fawqa albasitati kaana gayru kafaan amiin ma maanaam man sax xasida bi ak wax ji ak maanaam yi am na solo waaye jeu de mots yi Seydou Hadj Mansour di ràbbe affaire moom a jaaxal ma yàlla mhm. amruka kullu man kaana fawqal basitati xayruka faani <laughs> yàlla amruka kullu man kaana képp koo xamante ni fawqal basitati xayruka ah te alxayru la wax xayru mhm. bi mi ngi feeñaate ci li sidu xaaj maa la ci falaa bu dafa waqar ya baabal xayri mhm. ah mhm. alxayru mooy al axyaar al axyaar mooy kullu maa si wallah fa min al axyaar ah lépp lu dul yàlla xayru la ah xayruka lépp loo déggaat dul yàlla faani aji jeex la allahu akbar ah kon saam tabarakallahu xam nga léegi ñu ngi toll si aw buudi ya nga nekk jaam mu leer waaye jaam da ngay gis kuy jaamu keneen ku dul yàlla waaw hmm? am déet ah ok fala budda min shaqwa kurbati famaliya xeyrallaahi mm-hmm. maanaam xayru yi kat bëri na créature bëri li fi nekk bëri na ñi fi nekk bëri li ñuy yore bëri na waaye loolu tax ñu maa jóg si loolu tax a jóg mu ni leen la ma tax a mooy yàlla famaliya xeyrallaahi aw ma kenn ku may seet aw ma kenn ku may jëfël ku lu yàlla kon yow mi gëm ni da ngay jàng ci njàngalew Seydou Hadji malik gëm philosophe Seydou Hadji malik il faut malikiyaliser tes tes pensées et tes propos mooy lan nga bàyyi xel li ngay xalaat que ni man kat bu may xalaat am ko may ragal wala lu may moytu ndekete yëf yi ci loxo yàlla la nekk nga gëm ni la raafia illa allah la raziqa illa allah la naafia illa allah la dara illa allah bu ko defee nga duggaat ci contexte la ilaha illa allah ah bu nekkee laa ilaha illallah mu leer na ni benn jaam benn buur a fi nekk muy yàlla da ngay nekk en équilibre kon leer na ni jaam nga jaam bi kan lay jaamu laa naabuda illallah borom alal du la këf borom daraja du la këf amul kenn ku la mën a këf bakkan du la këf seytaan du la këf lan moo lay lan kan ngay amal affaire mooy yàlla mhm. kun lii kama uridu akun laka kama turidu mhm. moo la yenn saa yi nga dégg ñu ni Seydou Hadji Malick ak tubaab bi stratégie la amoon na tubaab bi d'accord ma ci loolu de hmm. déedéet lu tax ah, Seydou Hadji Malick yorul woon programme boppam hmm. Hmm? programme bi yàlla ko yoroon moo doon programmeel Seydou Hadji Malick nan lay jëflantee moo ko tàggatal ku ko tàggatal balaa Seydou Hadji Malick di jot tubaab bi ba naan ma nga jëflante ak tubaab bi fekk na yàlla tàggatal Seydou Hadji Malick xolu tubaab bi قالوا تي خلاف وان اتى ابن عدي كان جاوره خير الجوار لنجتك منتقم اذا اتى ابن عدي كان جاوره خير الجوار على الاكرام منتقم وصف الكرام منتقم وصلي يا إلهي وعن مختار في القدم بي وإذ أتى ابن عدي كان جاوره خير الجوار على الإكرام منتقم وصلي يا إلهي وتزينا أبا ينتبه عنا محمد فلقينا أي مصوى وإذ أتى بنعدي آه، آه، آه، إن كان جاوره خير الجوار على الإكرام منتقم يا إله في

الإكرام منتقم وسليا يا إله أبدا آه، بخربتين عظيمتين من لبن كل ليل جل الله ذو الحكم وإذا أتى نادي إن كان جاوره خير الجوار على الإكرام منتقم وصل يا إله جول جول فوت njool njool fuuta anna waaw مختار وخلن بخير بتيني عزيمتين من لبني اي بخير بتيني عزيمتين من لبني نبي خير بتيني عزيمتين من لبني وخلن بخير بتيني عزيمتين من لبني واو كل ليل جل الله ذو الحكم واو واو اتى بنادي ينكا انا خيرا لجواري على الإكرام منتقم وسلي آه. يا إله وجزية آه، أبدا أبدا أنا محمدنا المختار بالقدم tabarakallah oh. nga dégg ni kon góor gi mm-hmm. bi mm-hmm. du stratégie bu Maodo doon càmbar di ko connecté naan tubaab bi fii laa koy jaar fee laa koy jaar mm. ma indil dalil tegtaloo ci Seyduna Muhammad sallallahu ba muy dugg mm-hmm. ba mu jógee Taayif fa fi tariqatihi hadi daa bi duaa kaana waaw kay Seydou Hadj Malick radiyallahu ba muy ñëw jóge Taif mhm. Seydina Muhammad xamul ban kër lay dugg xamul kan a koy garanti mhm. ndax ñii ko dàqoon ba mu dem kër nijaayam kër nijaayam boole kook dof yàq xaj ya ak mag ñu manqué ñaak ñàkki personne te ñu koy sànni xeer mhm. wa at maw laa kaa mi ne sufaay maa la ëffu bi moo tax ko waa ni Seydou Hadj Mari wax na lépp yonent bi jàngoo xilaaf zahab allahu akbar hmm. min asufahaa yi maa loo xamante ni dama ko tudd mukk hmm. <laughs> ah? waaye la ma la ci mën a xamal hmm. pour jox la benn indice mooy wax saaqa ad maw wax saala damu lil xadam yi ah xoolal góor googu Seydou Hadj Mari njool màkk bu muy ñëw màkkatal mu karam ah? ibnu adiyin moom moo ko garanti waaye ñu ni ko waa si ibnu adi dafa gëmoon xanaa mu ni déedéet lii kañ mooy noon bu lay garanti ala ikrami muntaqimi kon garanti ne Seydina Muhammad malgré lui mhm. ah tubaab bi itam daan na defal Maodo li mu Maodo bëgg malgré lui zalika ala ikrami mun taqi mi ki nga xamante ni moom nga gën a bañ ci gaa yi mu gën laa jaaxal ci gaa yi boo defaree chapelle moo defar ay chapelle nga ni au nom du père mu ne bismillahi rahmaani rahim te lu mu bëgg ci am ko am na loxo bu la féete kaw féete ko kaw mooy loxo rabbu samawati wal ardi kon wa zalika ala ikrami mun taqi mi mhm. jalla jalaluhu ah? ndax bu ñu la waxee góor gi dafa doon dafay maanaam ci stratégie. Mhm. dafay mel ni yëf fi programme boppam la woon. dëgg la kon léegi ñu ci Abdul. Abdul waaw mhm. léegi nag jaam bi kan la war a jaam. Mhm. nga jàng classe mu ne alhamdu alhamdu lillahi waa Maodo alhamdu lillahi foo ko njëkk a mu ne déggewu ko fii dama koo dégg indaale waaw. mu ko déggee. xam nga yàlla. Mhm. avant muy bind doomu aadama yi. qabla xalqihi al axlaaqa ak aw qabla ijaadihi al mawjudaat. Mhm. bi nafsihi mhm. dana xam na ci boppam ni ñi mu bind dinañ ko jéem a sant. wa alima bi annahum laa yutiquuna aw yaajiduuna ñoom danañu ñortu danañu lottu walif sant yàlla comme ni mu tollool góor gi ni lamma alima allahu wa alima bi ajdihim an alhamdi iyaahu xamida nafsahu fi l adali niyabatan anhum wa qaala alhamdulilahi bi yàlla ne alhamdulilahi mm-hmm. ba mu koy wax moom yàlla bindagul benn benn doomu aadama amagul ruux rek a fi nekk mm-hmm. am na ñoo xam ne seen ruux fa la ko déggee mm-hmm. am na ñoo xam ne seen ruux mi ngi ko déggee da ko ñëwaat fi ñu réinitialiser leen wala ñu reconnecter leen wala ñu wala ñu graver waat connexion bi di alhamdulilah bi yàlla santone bopam ci sen xol wala ci sen ruh seydou Xaaji malik ni sama boss nak bama déggé sama ruh ni ya alhamdulilah yàlla ni alhamdulilah ken kenn connecté waatuma kenn réinitialisé wu amul kenn ku ma boole waat ci yëfi ñu ni ko mooroon na mu demee mu ni man lam yan shahadatan al qabliya ci xut booba shahadata man maa ngi sant yàlla alhamdulilah maa ngi koy sant di seede seede koo xamante ne lam yan sax fàttewul shahadatal qabliya ci li nga xamante ni bii moom la yàlla sante boppam te azaliyan sama ruux fàttewu ko ba ma nee balee fàttewu ma ko looloo sir xaj na fa kaana min jumlati alxaidina min rabbihim almadiya góor gi bàyyi fi boppam di wax ak boppam mel ni dafay nekkul te ne fi di wax ak ki fi newul ah. man mm-hmm. lam yansa moom moom ash-shahadata qabliya fa kaana mu nekk moom kooka min jumlati alxaaidina min rabbihim almadiya te aynu alxaamidi huwa saydu alxaaji maali kon faqi xaqiqatan huwa aynu alxaaidi alladi xaada xaada min rabbihi almadiyata ah kon obudiyaa ngoo kon nga nekk abdan lillahi lillahi waaw ah kon loolu leer na kon ki nga xam ni mooy njabootoo Seydi Hadji Malick mhm. mu leer ko ni Maodo mooy sëriñam mooy kilifaam na jël léppam jox ko boroomam noppal mhm. kon leer na leer na ni ko ay jaam lañ kii fi indi kan la muy yàlla mhm. fi mu ñu mooy fan fi nekk nii waaw mooy fan fii de mooy Tiwaawan ala innama dunya ah. daaru nawkaa wa jiifatun yu jaalibuha faxasar bi kaliw moo dama ni bul sonn de adduna bi ma gis nii kërug dof la bagage yi ay médd la mm-hmm. ay xaja koy xëccoo mm-hmm. yow mi am intellect sax yow mi xamante ne sa intellect mi ngi mi ngi fonctionné nga nekk doomu aadama faxasar bi til ka kali bu amal noblesse bu tool ne bañ a bokk ci xaj yi xëccoo àdduna moo doo ko wax de ah, ah? Ah, kon àdduna bi mm-hmm. amul benn sens bu fi doomu aadama bi jaamuwul yàlla ndax doomu aadama bi kii yaakaar ni Mercedes mooy tax mu nekk nit réere na defaru yàlla li sa morom defar bu nekkee mooy tax yow mi yàlla defar nga nekk li yàlla defar xamoo li yàlla defar lan la bu nekkee alalu àdduna moo la tee ne la dox sa digganteeg sa borom xamoo lu xew mm-hmm. hmm? ndax bu nekkee yére bu rafet lekk gu lekk gu neex àdduna lañ nekk mm-hmm. moo doon mu ni waaw da lekk da ngay naan waaye lekk geeg naan gi ak machine bu rafet bi ngay sol xaaral ma wax la fan lay mujj bala nga ci sonn mm-hmm. ladiidu taami wal mulaa wa nuumatul li rijsin wal bilaa sa yi'u moo doon mu ne ginnaaw bañ xamee fan lañ nekk fii fan ak lan lañ fiy def moo wax leen bagage yi bagage yi lan la bagage yi ay bu nekkee lekk la tee nelaw mis la wala ginaar la wala ceeb la lu mu doon bàyyil xel bala ngay wuti loo ko amee ndax li muy mujj doon jar na mooy yàlla doo ko am wala déet nga Amud, Amadou hmm. lépp looy bëgg a dugg hmm. bala ngay xool jaral na la am déet wala jar na su dumay boromam déet hmm. xoolal boo ci duggee fu muy mujj monsieur bi dem mooy yàlla sàcc alalu jàmbur dóor jàmbur ñëw jënd ci michu yi moo doon nee xel michu bala 24 mu nekk sobe bu nga dem docteur ñu ko mbub mu rafet mi nga sol mbub ma nga 2000 anam ah 2001 anam 2003 am na moo ah. Maodo nee na lal bu nooy bi ngay tëdd bërëb bu nooy bi ngay tëdd bàyyil xel lu mu mën ci lu muy mën ci nekk am na tëraay bi ko gën a yàgg ban tëraay la muy tëraayu bàmmeel la di du taami lekk bu neexi wal mu laa wanu umatun li si wal bi laa sa yow bu bagage si a ràpp da ngay ràpp alaaji maa ngi nee fi nga nekk àdduna fexeel ba loo fi def sa diggante ak sa nga xam lan la ah kon philosophie Maodo topp na doomu aadama ba mu xam mooy kan di jaamu yàlla topp na doomu aadama ba mu xam ki ko fi indi mooy kan muy yàlla topp na ko ba mu xam ni fii mooy àdduna mm-hmm. waaye na dafa am ku ñu yàlla booleel mu ñëw fii ki ñaala boole nag mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa kooku nu ñuy defa mu Seydu Xaaju Maalik mu ne am na lu xew man daal wax ji bëri na moo doo def na moo doo wax lii moo bind lii jaamu na yàlla def na ay xalawaat jàngale na defare na ji gindi na jaam yi teg na jaam yi siraatal mustaqim jàngale na mi nga xam tabax na ay dawaaya waaye loolu yëpp dalu sama xel ñu ko dal sa xel mu ne bëgg njool mànk wala sali amalu والمحا الصلاة والتعظيم والسلام على نبينا عليه أجمعين سلام ربنا نائما عائزة مولانا وليس لي عمل لك يا يوسف المحبة والتعظيم وسلام على نبي وعليه وأجمعين سلام ربنا دائما عظيم سعدي قفلني وليس لي عمل ألحاك يا حضر يوصي المحبة والتعظيم والسلام سلي عمل الله سلام ربنا دائما عام صاحبي مولانا وليس لي عمل لك يا يوصي والمحبة والتعظيم والسلام وليس لي عمل على عالم لك يا أمر يوسف والمحبة والتعليم والسلام يوسف والمحبة والتعظيم والسلام يوسف والمحبة والتعظيم والسلام يوسف والمحبة والتعظيم والسلام يوسف والمحبة والتعظيم والسلام يوصي والمحبة والتعظيم والسلام يوصي والمحبة قصب يوسف والمحبة وتعظيم وسلام يوسف والمحبة يوصي وسلام والتعظيم والسلام يوصي وسلام والتعظيم والسلام يوصي والمحبة والتعظيم والسلام وسلم والمحبة والتعليم وسلام xanaa kon leer na ni Maodo wax nañu fi ñu nek ak fañ jëm fan la. Uh-huh. loolu moo doon jàngale Maodo. ski mais programme bi. maanaam bu leeree rek maanaam programme mu Muhammad sallallahu alayhi programme bi mu doon kaabiran an kaabirin. Uh-huh. ci la ci la xaqiqa nekk mhm. ci la islaam nekk ci la ixsaan nekk mhm. an taabudallaha ka annaka tara in lam takun taraahu fa innahu yaraaka ndax da ngay gis amatul kenn ko fi nekk fa fal kawnu fi lxaqiqati fal kullu fi lxaqiqati alal adami lmahd da ngay ne kenn nekk fi ko dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala mhm. loolu moo lay dimbali boo taxawee nga ne allahu akbar kàbbar ni allahu akbar di julli te muy dëgg ci yow am na ku ne allahu akbar fekk allahu akbar ji a ko waaye du bokk bokkul ci conscience ndax am na lu mu bàyyi xel ba tax teewul teelul julli fii ak pare woo ci loolu nag mënoo julli Seydou Hadj Malick ni mm. nañu góorgóorlu joxante loxo ngeen jox ma seen bopp ma jox sama bopp Seydina Muhammad mu jox ñu yàlla ñu nekk yàlla ay ñu mat sëkk yàlla suñu borom subhanahu wa taala ay jaam mm-hmm. waaye nag kan mooy Seydou Hadj Malick ba tey waxaguñu ko Maodo mm. góor gi dugg nañ ci biir këram mm-hmm. jàngat nañ jëflanteem mm-hmm. philosophie am waaw gis nga oto bu jël essence nañ ci def essence rek bu jël gasoil nañ def gasoil mm-hmm. ah mm-hmm. oto bi la Maodo jox bala ngay sori dugg a génn xoolal ban carburant la ci Maodo doon def ma noppalu xam nga ban carburant moo gën a wóor ci carburant yi Maodo doon jëfandikoo mm. mooy attawaadoo attawaadoo wàcce sa bopp képp ndax kaay ma wax benn affaire de mm. gis nga li ñeneen ñi gis ba tax ñu jàppe na ñu jàppe yàlla wala ñu leen di jaamu bàyyi yàlla mm. Maodo wan na waa këram lu ëpp loolu lu tax ñooñ jàppewuñ Maodo yàlla xamul tax dafa sonn ci ñooñ bañ xam ni Maodo du yàlla Maodo munta nekk yàlla Maodo jaam la abdun dalilun faqirun xaashoun wajilun ñu xam ne alfaqiru alxaasho aljaliyu muftaqirun ila maxluq ila ila xaaliqin fal muftaqiru ila xaaliqin laa yakunu xaaliqan wala yakunu rabban lana fawzun waaw waaw moo tax Seydi si ñu fekk ko mu toog ñu ne ko waaye kuy sa baay Seydi Hadj Malick mu ah, na waaye la soree lana fawzun ku wax loolu kan la Serigne Babacar Sy ne baayam lana fawzun xoolal lana fawzun mhm. ñun de nañ lana xunmun ñun kat am nañ koom de am nañ richesse bi sahmi marhaban sahla ñun kat luñ ko may mooy sens bi yàlla séddalee kim ñu booleel mooy waaja muy Seydi Hadji Malick jàpparaw jaza mawlaaya cheikhi man man daal sëñ Babacar maa ngi ñaan yàlla fayal ma kan sama sama sëriñ kan la Seydi Hadji Malick ala yahmi law shamla waaye yëkkatiku na waaye maa ngi ñaan yàlla mu sàmmal ko képp kuy njabootu Seydou Hadj Malick fa in jitum ila qarmi xam nga alqarmu mooy as-saydu ash-shujaa baatu arab la bu doy waar la alqarmu bokk la alqaram alqaram mooy ku a lekk yàpp alqarmu mooy bu mat sëkk sang su góor gi nee bu ngeen dikkee al ila qarmi ci sama ngënk ci sama sëriñ bii sama góor gi nga xamante ni bii ku mu yóbbu nga yegg ku mu xamal nga xam ku wan nga gis hmm. Seydou Hadj Malick boo ñëwee sàmm loo koy wax kafaakum maa kafaa waslaa njaa maanaam lu jot sëkk ci boo ci jàppee yegg ataakum dikkal na la kooku ma Seydu Xaaji Maalik fa xaqiq maa bi nutqun lépp loo xool ba dégg ni moo doo ko wax neen ok reyal li c'est une vérité fa xaqiq maa jara fi'la lépp loo dégg ni moo doo ko jëf jàppal mooy mooyul benn sunna Seydina Muhammad xaqiq maa jara fi'la yéen sama soppe yi nag kaay leen ma dee leen wax leen loo xam ne du ma ko wax ñu bëri loo ko loo leen di wax saam faludu bil xara ahla gis nga professeur bi mën naa jàngale mais gars yi mën nañoo jàngale mhm. faludu bil xara faludu bil xara ahla nuzuru day nuzuru day finil xira mhm. wa jamu qaryatin qura mhm. لمكة أم القرى فلوزوا بالقراء مورني ما أسند القراء إلى أم القرى جان آسف يرجو القراء فلوزوا <laughs> بالقراء professeur bi aay mhm. il est fort. waaw mais l'élève est très fort. waaw waaw. faluuzu ورمك منينا ولوز بالمتابي أمام زهابي ومن دق باب كريم فتح فلوزو فلا xaraa ci seen digg ginnaaw muntadirina alqiraami seydi xaaji maalik fa in yuza lahu qawlun fa mimman qad nafa misla bu nekkee dañuy askanale wax joo xam ne mi ngi jóge siru xaaji maalik ñeen wax ji kan fa min man mi ngi bàyyi ko ci nga xamante ni qad nafa dàqu na lan moo dàqu mu ni misla kem kuñ koy tëkkaleel wa yaqfu man lahu sidqun ki muy topp nag seydi xaaji maalik mooy mi ngi xeentu koo xamante ni ñeel na ko ak sidqu lépp yi dëgg mooy rasul rasulillahi wa yaqfu man ala rusula Maodo lu tax lu mu wax dëgg la lu mu def dëgg la ndax du jëfal boppam li mu def da koy toppandoo Seydina Muhammad Maodo nee na dund naa 66 ans ci kaw suuf musuma fay def dara wa huwa al fataahatu inda kulli shikaam ñu ne ko waa Maodo li ñu naan Maodo def na mu ni déedéet def ma ko kullu ma faaltu bi nawaytu uswatahu lépp lu ma fay def dama doon toppatoo njool màkk waaye jotuma fay def dara ma si xaaj sëñ Babacar si ne ma Maodo wa huwa alfataatu inda kulli shikaayatin nee na bu nekkee da ngaa jaaxle rek échappatoire bi ki koy régler problème bi solution mooy Seydi Hadji Malick wal jaaru lil muhtaji akramu jaar wala muxtaaji jaarin kii sàkkandikoo dëkkandoo kii sàkku dëkkandoo ku ko garanti akramu jaarin ko gën a tedd ci dëkkandoo yi gaawal daw daw bu la moo duna ci Maodo mooy waaja mayis bi ma sawdallati hiya tamratun nee na gaa yi bëri na ñii Maodo Maodo lu bëri na ñii cheikhu cheidul lu bëri nañu ñii cheikhu cheikhu lu bëri nañu waaye góor gi ne na am temps faire la distinction entre li ñuy wax tàndarma ak lan ak lépp lu ñuul bul gis lu ñuul lekk nga ni tàndarma la tàndarma yi ci lu ñuul la waaye il faut prendre ton temps pour xool làmb mu nooy nga ñam neex tàkkamtiku ngay doog a accordé ni tàndarma la wakadaaka saxmatuna xasaari xasaari xoolal xoolal xoolal xasaari xasaari xasaari xasaari ka badaari badaari الشرعة الشرعة والرجعة الرجعة بداري بداري قولنا حذاري حذاري اسمه فعل أمر الله حذاري أتا شنو حذاري دفرنا حذاري حذاري عد نحو عد خلال عرج بمنارج العداب والردي بين اللساب وبين ذات الأرمد وأجد من الجذع التي بحديدها أجداس أسنى إلى شير همدي من عد نحوها سرين بابا كرسمين بايم عد نحوها وصرم عبال حوالي Bakri pada hari pada mawɗo jaa ya. sam ɗi gowhadde ɗi gowhadde عد نحوها أه. واصرم عبال حوارحم قل badari Maodo Njaay xoolal nee na jàngal jëm ci góor gi lépp luy dox obstacle nga jéggi ko dagg ko féetale ginnaaw xam nga lu xew waxal ki ngay àndal ni ko sawaay Pape Amadou maa ngi dem de Sam maa ngi dem Pape Maam Amar Ndiaye maa ngi dem de Babacar Niang maa ngi dem de Ousmane Diop cameraman maa ngi dem de Moussa maa ngi dem de Ndoye maa ngi dem de eh badaari badaari waaye badaari xam nga mooy lan asuraata suraata gaawal gaawal badaari badaari yàkkamti naa boo demee maa ngi dem boo demul maa ngi dem boo demul ma dem bala fi badaari badaari wa amaytu rawbata malikin saam Seydu Xaaji Mansuur lu mu wax baayam Cheikhul Aali Muhammadul Mansuur Maalik ne والله ما ضيعته بين بين بين بين بين ركب بل بل روائج الإديان والله والله ما أبخيت بابا مدخلا كما سوى من ذكر شيخ góor gi nee na ñun waa asfiya yi dañoo toog Pape Amadou Sam ñu taal caméra yi lu ñu fi tax a min dikri cheikhin min dikri cheikhin di fàttaliku kuñ fàttalikuwul di waxtaane ko ñu sopp muy Seydou haji malik alimin min dikri waxul min dikri cheikhi ala taarif min dikri cheikhin di waxtaane sëriñ bu màgg tamat sëkk sëriñ aalimin mutawariin lépp dafay firi rek min dikri cheikhin ndax laa yakunu acheikhu cheikhan in lam yakun aaliman in lam yakun mutawarian laa yakunu cheikhan mu ni min dikri ci fàttaliku di waxtaane cheikhin sëriñ aalimin ku di aji xam mutawariin lan la xam saam saam saam aalimin aalimin xam na zaahir aalimin am na baatin aalimin xam na sirru عالم خمنا سريرة عالم خمنا سر سريرة عالم خمنا سريرة سر عالم خمنا سريرة سر سر عالم خمنا سر سريرة سر كوكو عالم برم خم خمنا أوكي عالم متورع ما أجي سمو قد لنا ويل الهدى بعناه wommat ku bëgg a wommat wommat ku bëgg a wommatu jafewul xam nga lu jafe jëmee ko fa mu bëgg a dem wommat ku bëgg a wommatu c'est pas waaye li jafe mooy yóbbu ko fa mu war a dem xaada ommat na moom Seydu Xaaj Maalik al anaama tasmitul kulli bi iradatil jusi al anaam mooy mbindeef yëpp te mbindeef yëpp topp ñu ko waaye tudd na ñëpp waaye ña jox nopp yaa dafa leen topp ñu topp Seydu Xaaj Maalik xaadahum ilal huda cheikhun xoolal rubba man qaada atbaahu ila dalalati bëri na ko wommat ay taalibeem jëme leen ci boppam bëri na ko ommat ay taalibeem jëme leen ci bakkan am na ko ommat ay taalibeem wute leen alal àdduna waaye góor gi nee na Seydou Hadj Malick bi mu ommatee gars yi da leen yóbbu fan faam ilal ilal udaa yóbbu leen ci jëmmi njub ja bi inaani loolu nag yàllaa ko defal tawfiq mu ommat ak gogam gars yi topp ko kott kott yoolu yoolu ba mu jébal leen rasulillah cheikhun war gi nee na wal yaalam Seydina Muhammad nee na doomu aadama bu nekk war na xool préparé boppam ndax xool ba xam man Seydina Muhammad moo koy présenté yàlla nan la bëgg yàlla gise ko keroog moo tax gi nee na Seydou Hadj Malick wa man na gars yi defar leen teg leen alaa nax jël qawim ala siratin siraatin mustaqim fanqaadu ndax lan bi xusni siyaasatin waxaatal bayit bi cheikhun sëriñ la de taqiyun laa yusannu bi ribatin waxul waxul ibnu cheikhin waxul xafiidu cheikhin dañu lan cheikhun waaw شيخ وللشيخ آيات إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري شيخ إذا لم يكن العلم لديه بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر شيخ من بني واجي سرين لنغا خولكو أمول خم خم بير أمول بيتي أمول باطن أمول ظاهر كوكو جابني دو سرين غادي كو فانتوكو شيخ سيد الحاج مالك شيخ واي سيد الحاج مالك شيخ سرين لا تقي الشيخ التقي هو سيد الحاج مالك سيد الحاج مالك هو الشيخ التقي سيد الحاج مالك شيخ تقي شيخ تقي نانا نعم سيدنا بورقالي الله لا يظن بريبة من علامات التقوى أن يترك الإنسان ما لا بأس اتقاء مما فيه بأس لا يظن بريبة سامو بكونا تي من درغا الله دوما آرما بي باي يغراول يبول ما يتو جي جي لول ما رغال الله وما تسكن إلا في رضا الملك وما تحرك إلا في رضا الماء لا sam dugal waxalaat li nga dugal nga génnaat ñu demaat nga ne lan la maa taharraka wa maa tasakkana nee na Maodo boo mu ni dégg dégg rek nekk di dégg dégg dégg illaa fi ridal maliki lu ko fa bàyyi mooy yàlla lay sàkku ngërëmam moo mu ni wa taharraka di fi ridal maahi ma nga déggal Allah, akbar araba day war wa maa taharraka wa إلا في رضا الماحي إلا في طلب رضا الماحي إلا في رضا الماحي إلا في رضا الماحي إلا في رضا مولاه الذي منه محو الذنوب الذي يمحو الذنوب الماحي هو الله إلا في رضا الماحي إلا في رضا الماحي إيه إلا في رضا الماحي نرى ما يساكو نرمال سيدنا محمد نرمال يلا نا الماحي من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أحمد ماحي وحاشرنا نبي مرحمة تاب ومدعم سام يا من ترى أنه المخصوص أم أمداحي بما حوت من شفاط الشوق إصلاحي سام لن وهركو سام يا laysa man dara kaman alima ya man dara ya man dara laysa alfaqihu kalladi dara ya man dara ya man dara laysa allabi labisa dara kaddara ya man dara ya man dara laysa man tadarra bidara kaddara ya يا من درى بالحقيقة وعلم وأيقن أن هناك من هو المحصوص والمحصوص في المدح يا من درى المدح دفع أم محسوس المدح أم زم أم محسوس زم أم واي المدح موي تاغي محسوس تاغ محسوس المدح مدح موي كي تاغي تاخجوك غورغي نينا يا من يوم ميغا خامتيني دارا خامنا تي دغ دغ ني انه انه محسوس أم yow mi nga xam ne xam nga ni yaa ma tax a xoos sama xalima sa yaa ma ndara bi ma xawat min sifaati shawqi islaahi xam nga suñu ñëwoon toog ni waaw kay borom garaam bu rafet bi borom mbaxane bu bees bi borom maraakis yu weex yi yore junni ci loxoom yore micro asfiya yi nañ xam ni saam la ñuy wax am déet góor gi ne yaa man dara góor gi nee ne bi ma tuddee baax baax yi xam tedd nga yi xam maarifa xam ragal yàlla ji wax dëgg yàlla ki moom yëf yi Seydou Hadj man yëg na ni ci moom laa jëm ne ko yaa man dara yaa man dara annawul maxsuusu am daa lu صفات الشوق إصلاحي lu tax loolu mu xam ni mooy moomu ndax lépp luy teraanga lépp luy mbaax lépp luy ragal yàlla min al maarifi wa taqwa wa tuqa wal hidayati wal wusuli wal hidayati wal maarifati wal hidayati wa taqwa qur sayyidul haaji mali tahalla wa tahallaqa bi jamii asnafi al khuluqi wa bi adami asnafi al hiliyati min at taqwa juttul mawami yajultul mala fi saam waxaat ko juttul mawaamiya jultul maala fi talabil waxaat ko ma dégg na dog naa àll yi waaye wa walaan nga ni saam jultul fi talabin nee na wa juttu ma joxe al maala xam nga jaala wa jaada jultul jubtul ma wa jul wa wa. jubtul ma wa jubtul ma la. jubtul ma waa mi ya. jubtul ma la si talabin. jaara xam nga jaara dafa jege jaara ak njaala. جاد بالمال وجال بالموامي دقنا علي وجدت ما تبع المال على الجا لوتخ نغ وورتي علي بي فاي باس دوغ افيون دم اي رابور دوغ افيون ولا دم غاراس دوغ اوتو دم نا صاح بو دوغ سي جاكرتا يي دي سيت واجي ولا ما دم غاراس ووتي دوغ ووتي دي سيت واجي غيسوموكو لان لا دون سيت سا شيخا يريني سمار الوصل للماحي من كان كيما دون سيت دو كين كان شيخا لاي سيني لاي وود اب سيني وخا مانتي بو راغال يالا لا على عالم التقي الذي يعلم جميع العلوم جميع الفنون من المعاني والبيان والبداع والأصول والمنطق والشيرة الحلبية والشيرة والتفسير فذلك لم أجد للأرض ولا في السماء ولا من بضان ولا من سودان ولا من القصارى ولا من من الطويل إلا من هو قصير الحجم فهناك أيقنت وتيقنت وأيس بإيجاد أو بلقيان شيخ كسيد الحاج مالك شيخ oh ki may seet sëriñ la. mu rabbin. daf lay tarbiya. bi rabbin. ci ndigalu boromam. waalidin. eh kii du yam sa sëriñ tarbiya la waalidin sa baay lay doon. rahimin. daf lay yërëm. cheikhin. sëriñ la. wa xisnin. koo xam ni tata la. xasinin. tata joo xam ni boo ci duggee rëcc. duuna atraaxi. li may wax neex na waaye déedéet duuna atraaxi nekkuma di xaabaabal li may wax yëpp dëgg la. cheikhin sëriñ la rasinin nee na sëñ boo xamante ni dafa jub tey jubal baax tey defaree mën a yóbbuwaate munifin eh ki may wax ku jombulu ku yëkkati ko la raihin nee na ki may wax ni ku yéeme la karamin ki tedd la wal masakini mooy ki nga xamante ni ab sëriñ la boo xam ni doo ñëw ñun la paa bi dafa ne ci biir di recevoir booche yi déedéet moom taalibe yi lay njëkk recevoir doog a recevoir booche mu si ba wala itaami samaaxi nee na samaaxi سماع فعال من السمح تبع ويتبع كل ما ي... ما يكابل من فعال سيد الحاج والله فأبشر يا tijaani Sëriñ Maodo sabay bay si ne sabani ya sabani ya borom centenaire Kër Seydou Hadj Malick Ba Amady. Alhaji Souleymane macha allah xam naa soppe yëpp bëgg nañ. waxtu wi temb bataaxal yaa ngi ñëw euh, kenn ku ne ma ngay yónnee bataaxalam euh, boo duggee ci euh, YouTube bi. seeni commentaire ñoom itam ñu ngi dund mbégte mi macha allah di la ñaanal. Serigne Issa Touré. Mhm. moo ngi envoyé message ne mi ngi seetaan tabarkalla ak moo daa waa daayira sopp na di feeñal contentement am. Mhm. Pape Amadou Loum ca Nouakchott tabarkalla Bachir Ba Youssouf Bachir Ba ñëpp ñu ngi nuyoo tabarakallahu ca Nouakchott tabarakallahu di ziyaara mm-hmm. ku ñu wax Faat Jaw Jaak sama jigéen tabarakallahu foog fonk daara ji bu baax tabaarakallaahu moom mi topp waxtaan wi moom critique yi moom ma koy jox comme que moom mi naan baax na rek sama xel a ngi daal allah yal na yàlla dëgëral ko jazaakumullaa xeeran bismillah amiin yaa rabbal alamin macha allah alxaaji sam sopp yaa lay bégee di la ñaanal jàmm waaye itam façon waxtaan bi oustaz Souleymane Ba waxtaanee macha allah ak ñun tabal mbégte ci xol yi waaye itam jox ñu orientation yu am solo mooy firndeel sànq da sëñ Mansour bi nañu fexe ba associé utile ak mm. agréable kenn ku ne dund nga tënku woon bu ko defee nag nga mën cee roy ngir mën a defar sa nekkin ci àdduna bi mooy findal sa li xaaj maa daal maam hadi wax ne woon na ko axsanta fi diini wa dunyee muamalatan sam nag am na mbokk yu ñaan balaa ngay tëj foo nga wel ñu jool faama jaxaay loo di xaacooy si am na ku ne kan mooy njaag bu sam waaye ba ba noppi daal ni Maodo njaag sam njool faama waaw njool faama we di jooy naan ñoo we jooy faama waawa jaxaay lu la di xaatooy xanaa baa la weel Sénégal نفسي كذا ويلا جنا يدي جوينا نوي جخيل تاريخاتو تغفري رايا موضوعي واو نجم علينا بيبا جنو ko sosal Seydaaji Maalik amaltawum bi siyaasaatin bi yantafa'u jaak wa wasalu lil ali masdul gaa ngi musal فسوف تزعر بعد الذوق أن لنمص أحلى وأصفى أخي من سكر وعسل فسوف góor gi nee na du ko bañ dañ koy réeré. Maodo rabbika arshaka allamtal wara ba nu xam. waaye xam Maodo pratiquer Maodo bañ Maodo c'est impossible. nga dellu leen ci yoon xam ni kenn fetalul. billaahi. ayaa Seydi. xaali. ndeysaan. wa Cheikhi. Mhm. wa Walidi. منابي وحسني مرشدي ووصلتي إلى الملك المعبود جل جلاله وأفضل مبعوث إلى خير أمتي سيد أبي العباسي طريقة عمدتي ورب الورى يعطي لمن شاء ما يشاء من أفضل saam xam nga la moom ma jaaxal Seydou Hadj Malick eh. doomam doomam yee ko gën a gëm doomam yi ñoo ko gën a gëm amul kenn ku ci jël xalima ne xalima ne abi ñëpp cheikh yi rek waxaal yi murshid yi wasilat yi fan la ko jëme saam ilal malikil maabud xam nga yaay sama sëriñ yaay sama nijaay يا ما يوب فما جمع إلى الملك جمع ما تي الله المعبود ما في متى مليون واحد المعبود بالحق هو الله جل جلاله يا الله ما جن جيبو ما جن كوي ن جيبو كوي تكين جيك تيو كم كوي مم يا وافضل مبود إلى waaye julli gi man ngi koy julli na ki nga xamante ni bi mooy afdali mabuusin mooy ki nga xamante ni moo gën ci ki ñu yónni ila xayri ummatin ci gën ji xeet mooy Seydina Muhammad Muhammadil Muxtaar nuxbati Haashim kooku mooy tànneef banu Haashim daa baax Maalik nee na kooku na mooy sama wasiila jëm ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala Seydina Tijaani a'zama qudwati xam nga yi gën a màgg ku ko yàlla tegleel ku ko yàlla tegleel yi gën a kawe ku ko yàlla tegleel boo kaw boo kawewul ñàkk yëkkati ku ma abil abbas yi ku bokk ci xeetu yonent bi muy xayra ummatin uxrijat linnaasi xadima bil abbas nga bokk ci tariixa Cheikh na Tijaani nga xam ne yonent bu neen ko asxaabuka asxaabi fuqaraauka fuqaraa yi xadima bil abbas yamuloo ca nekk taalibe Cheikh waaye di njabootu Seydul Xaaju Maalik xadima bil abbas boo nangoo yàlla teral na la boo nangoo yàlla teral na la boo yëkkati ko yàlla yëkkati ku na yëkkati na la boo yëkkati ko yàlla yëkkati na la yaay xadima abil abbas yow mi nga xamante ni yaay aji liggéeyal abul abbas cheikh na tijaani waari si sirri yamuloo ca de waaye waari si sirri yi nag loolu mooy code bi saam waari si sirri yi waaw maanaam secret cheikh na tijaani alal xaqiqati tegu ko ci benn loxo bu dul bu Seydu Xaaji Maalik waaye si sirri ji la wax yamu ca xazinata asraarin yaay trésoru secret yi maanaam asraar yi mbooti tariqa sana tijaani maam dabax nee na ki nga xamante ni moo doon gardien mooy Seydi Hadji Malick Sy fala shakka anna allaha xasaka shaykhana amul sikki amul sikki sàkka ni anna allaha naka yàlla xasaka jagleel na la malaay bala taxfa ala bi basirati shaykhana وحذف يا يجوز في النداء وحذف يا ربي يجوز في النداء من ربي استجب دعائي وحذف يا يجوز في النداء في النداء كقولهم ربي استجب دعائي كقول بهم رب استجب دعائي دعائي كقولي رب استجب دعائي كقولهم رب استجب ندائي بكل قصدي كقولهم رب استجب دعائي تلتي وحذف يا يجوز بالنداء كقولهم رب استجب دعائي وواق كقولهم رب استجب دعائي دعائي كقولهم رب استجب دعائي ini macar lah matière la. ci matière yi ñëw. ci matière yi ñëw Seydou Hadj Malick. damay dégg nga naan. de par sa plume. moom la wax l'homme qui de par sa plume et son encre a réussi à combattre l'ignorance mhm. et l'exploitation de l'homme par l'homme mais Maodo ni muy bindee. waaw est-ce que ku jug dégg ko. déedéet yan jumtukaay laaj pour dégg bindu Maodo. la la yan jumtukaay. <laughs> <laughs> مروعها مروعها خليل للرفع قلت ولد فلك يا فلك يا النسب والكسر كيف سنح كيف سنح مصح للجسم ونائبات ونائبات عشرة كما روى الثقات أبوابها التي بها تنوب تنوب تجج المنام يا حبيبا أبدة يا ملك الأصول أصول رنحج فروع خليل xam nga Maodo. bilaay seen aaj maag ne simple am bi lépp lu mu simple ci jàng ci li mu simple ci bind mhm. li mu simple ci jëmm mhm. ak ci dundin compliqué compliqué na ko ci mbind mbindam mhm. waaw maanaam personnalité moo war boo jàngee xam-xam mooy moo war waaw waaw il ne à la légère déedéet déedéet xoolal ni muy binde xam nga tawil nga jël ko def ko tawasul di ci waxante ak sa borom te gars yi bu ñuy jëmee ci seen borom bu gën a yomb ximaaru shaara la ñuy jël mooy rajas rajas ngay dóor waaye tawil nga jël ko way ci téere ba ñu wax fala budda min shakwa ilallahi kurbati xam nga lu war a lool innama ashku basi wa huzni ilallahi moom wax waxi yonent yi waxi waxi waxi yonent yi lay jël di ko waxanteem ak boromam suñ Babacar ne sama bàyyi Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu saam boobu xam naa ne saam boobu boobu lay xaar sama baab Seydou Hadj Malick mhm. moom la xam-xam yi xam nga gars yi dañuy bëgg a jàngale di jàngale mhm. waaye xam-xam yi ñoo ni Maodo yaa war a jàngale ba kullu fannin mhm. lisaanul xaali lisaanul xaali min tey siiri maa usra ba ñu ñëw kan a kan la bayaan ñëw na xam nga bayaan xam nga bayaan ñaata la xam nga bayaan dafa am ñetti ñu ñaari ñu mbokkal ñu tudd fànn gi tudd ko bayaan muy tasmiyatul kulli juz bi iradatul kulli xam nga xam nga tasmiyatul juz bi iradatul kulli bokkul ak tasmiyatul kulli bi iradatul juz i xoolal ulumuhal bayaanu bayaan maani badia mooy fànn gi nga dégg naa bayaan bayaan moo bayaan ñetti fànn maani badia ilmun bihi لمقتضى الحال يرى لفظا مطابقا وفيه ذكر مسند مسند اليه دنجلي بوكل علم به لمقتضى الحال يرى لفظا مطابقا وفيه ذكر بوكل علم به وجوه تحسين الكلام يعرف قلنا علومها البيان والمعاني وبعده البديع ثم ثاني علم به تتابع اعتبار النفس وانقصار انقصار في باب اسناد wa musnadin wa maa ilayhi musnadin wa qasun faalama xam nga boo demee booy jàng naxwu dañ naan la mubtada ak xabar waaye boo demee ci bayaan mubtada dootul tudd tu mubtada xabar dootul tudd xabar musnad lay tudd ak musnad ilayhi musnadu mu fa xabar fi xa ulumuhal bayaan wal maani summa al badiu wa baadul badiu summa saani dañuy wax ni na ci biir bayaan ak maani dafay am loo xamante dañ koy bañ baat yoo xamante ne dañuy nuroo fu ñuy génn comme xoolal xo xoa waa ji dafa bàyyi dafa bàyyi naaga gi giléem gi ci biti ñëw ñu ni ko ana giléem ga mu ne taraktuha tara an naq naqatu ak adairuha mustasjiratun ca imru ca shu'ara ilal ula tadillul madara fi musnan wa mursali ñu ne déedéet li ngay wax jubul ndax xo xoa fasaaxa neexul a wax te nga xamante ni bii dafay naqari boo koy génne nekkatul fasaaxa wa ni sif bil fasaaxatin murakkaba wa maa ofrida su ma man bi daa takallama wa bil balaagati si wal mufradati wa bil baraati kada aydan wusif wa man yaqul bi shiraati faqdi karaati sami xarin bi raddi loolu tax waa ji war mbaam dem ba ci digg géew ba daal di daanu gaa yi di ko ree wër ko mu ni e maalakum te ka ka كنتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني تكأكأ بمعنى أحاط ما لكم تحيطون علي إحاطتكم على ذي جنة من ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني بقول وقبر حرب أي بعد يجيجن تلورو قال وقبر حرب مكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر بوكو بغي wax yakam ci da ngay joom lolu amul fasax xam nga رن muy ren ni ron ren man de ci ron ci soñ xóor ron ren ron rey nit ci ron ron dalam baat yooyu ni muy compliqué du am fasaxa loolu lay loolu te këtum alayya te te këkum ala di jinnatin benn baat mën naa fasaxa boo ko boolee dootul fasaxa mu ni wa bi bil murakkabi si wal mufrad si wa bi balaati mu mutakallimun baliix waaye kalimatun baliixa kenn du ko wax waaye kalimatun fasiha dinañ ko wax kalaamun fasiha dinañ ko wax mutakallimun fasih dinañ ko wax loolu gi si wal mufrad si mu ñëw ci arur ma ñëw ci maanaam pour wax la Maodo pour nga comprendre ay xam-xam jàng yi mm. da ngay jàng ajurum mm. jàng ibnu malik jàng ihmirar mu ni mawsul asma alladi unsalati wal yaa ida ma shuddida la tusbiti wal yaa duma wakshilan musaddida waxibu kalli kallati aw ila dada bal maa yelihi al aliyul alaama wa nuunu in tustat fala malaama wa nuunu in tustat fala malaama da ngay ci ci ibnu ci ci borom borom borom borom borom ihmirar moo lay indil benn benn ya fara inna abaha وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها وفي أب وتالي يندر waqal la man bi xasrihi nana taxaa dafay gudd tabaarakallaahu comme que tàkku tàkkusaan gi jeex na da ngay julli ji timis ñu delluwaat ci li ñu Maodo bàyyi loon mm-hmm. mooy koonu lillaahi aabidiina mm-hmm. nekk leen di jaamu yàlla lépp lu ngeen def ba jaamu yàlla jot bàyyi leen ko dem jaamu yàlla ak képp koo fi nekkal ba yàlla soxla la nga bàyyi ko fi yàlla jël la bàyyi ko fi wala yàlla soxla koo jël la bàyyi ko fi benn laaj laa laajoon nag maa ngi koy laajaat ñëpp am nañ tontu bi mooy centenaire bii di ñëw fan la ñuy jërëjëf Souleymane Ba yàlla na yàlla yàggal la fi bi jaahi nabil Moustapha sallallahu wa sallam laaj boobu xam naa ci tontu alxaaji Sam Mboup moom itam yàlla na yàlla yokk wéram doole guddal fanam façon waxtaan bi nag ca ngay déggee la maam Xaari Touré waxoon maam Cheikh Alxaaji Mari daal mudarrisan kulla ilmin kaana mudarrisan ñu nuyu ñëpp nag ziar leen na daanaka une minute moo ñu dese pour ñu tàggoo ci daayiratu tabarakallaahu ca Ndar moo da maam Fatou Ba tabarakallaahu Abib Ba Lum Gànnaar a Amadou Lum ñëpp daal ñu ngi di macha allah alxaaj Souleymane nuyoo nga ngoog ak ziar bi nuyoo alxaaj Sambub ak ziar gi itam ma ngoog macha allah jaajëfal sama jàmbaar ya ma feggooloon ci édition spéciale bi jagleloon ko suñu jàmbaar ji suñu maam Seydil Hadji Malick moo tax ñoom yëguñu coono macha allah yëguñu xiif yëguñu mar lenn moo leen di euh, activé saa su ne leen jox énergie positive mooy cefeel ga ñu am ca maam Cheikh Seydil Hadji Malick jiital ci alxaaji Moussa Diop at Tidiane mu yóbbaale équipe bi mu fegool yëpp nag imaam Mouhamed Lamine Traoré ñaanal ko jàmm gu doteeku alxaaji Bira moom itam duñ ko fàtte benn yoon sëñ Babacar Babacar Kane sama jarbaat turandoo sëñ Babacar si Seydina Omar Fall moom itam at Tijaani ñi koy ñaanal jàmm gu dooteeku fàttewuma Seydina Mouhamad Ndoy turandoo sang bi moom itam ñi ngi mu taxaw biir ak biti dafa leen jàmm Alxaaji Mamour Dem turandoo sëtu Ahmed Dem bu Sokone ñu nuyu bu baax a baax ziar ko ak mboolem équipe bi nga xam ne nekkoon fii ci euh, ci centenaire bi sëñ Babacar Ñang almuhaddam macha allah soxna Aïcha Lum suñu jigéen borom almukallaf imam Pap Kan ñëpp rek kulim doo matal Seydina Alioune Fall macha allah yu rafet yi moom itam Pape Diop suñu wayjur moom itam ak mboolem ña jàpp ca liggéey ba ca Dakar euh, Abdourahmane faal soxna Fatou Bintou Dabo ak mboolem équipe bu Asfiya yal na yàlla defal leen jàmm jox leen rendez-vous très prochainement ci yéen i jotaay ñu daal di koy dugal ci émission yi nga xam ne yéen a koy suivre yal na yàlla defal ñu jàmm ju matale ci barke suñu maam Seydil Hadji Malick yaa rabbi nawwir darihan lil imaadi lana min kulli yawmin lana min yumnihi iidu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soxna Yacine Diagne soxna di ziar madame Ba yàgg leen fi tànd di ca leerloo. asmaane yaay kennu diine si